yi ñu war a amal ci ñett fan ay acteurs yu fare ci société civile war cee waxtaane lépp lu jëm ci wàllum gestion frontière yi ak mobilité. aujourd'hui le modèle dans tey modèle bi nga xam ne ci la ñu nekk dafa doon modèle boo xam ne day néewal suñu état yi doole rax ci doole yi day tax du am responsabilité ci li nga xam ne moo di suñuy frontière loolu bu amee rek ñeneen ñoo ñëw di am ndogal ci li nga xam ni noonu la ñuy saytoo yi. jafe-jafe yu yenn migrants yi di jànkoonteel bu ñuy dem ci dëkk tugal yi ak la ñu leen di refoulé doon lu soxal bu baax jadem ba tax directeur exécutif am jàpp ne inégalité dëggantaan moom la ñuy seetlu ci mobilité bi. mondialisation bi nga xam ne suñu réew yi ci la nekk dafa doon loo xam ni tollolewul réew yi te itam dina may tubaab yi ñu def seen déplacement comme ni ñu ko bëggee te africains yi mënuñoo am loolu. là où muy sàkku rek ñu xoolaat accords yi nga xam ne ni moom moo tënk suñuy dëkk ak dëkk yu nekk ci bitim réew. Euh, coopération bi war nañ ko xoolaat discuter ko defaraat ko ba nga xam ni vraiment nit tubaab yi amee sañ-sañ di dugg suñu dëkk tamit ñu tamit xëy na xam naa ne dina su ma ko waxee dinañ def mais ñu tam ñu am sañ-sañ dugg seen dëkk loolu loolu mooy yoon. migration irrégulière doon li nga xam ne ni saa su ne day gën a bëre jadem jàpp ni dañoo war a xool yeneen solution ngir mën a dàkkal bi mbir.